mbokk ñoo ngi dellusiwaat ci photo bii ñu doon publier xam naa tey nuyoo bi moom xam naa day guddal rek waaye xam naa li ñuy ci jëkk a rek mooy a'uuzu billaahi mina seytaani rajim ba muy ñett yoon xam ngeen li ñu daan wax ci gannaaw lépp jëme ko ci fokkat yi moo xam bari làmb yi la moo xam musiciens yi la moo xam fecckat yi la moo xam caaxaankat yi la moo xam ñiy fowee alxuraan moo xam ñiy fowee lépp maanaam lii doo nga lañ doon danoncé daan ko wax ndax lu toll ni alxuraan moom bu ñu demee ba nangootuñ koo jàng di ko def ci am mbubb di ko sol di dem ca làmb ja di yor sobe musiba dana am te bu kenn nag toog rek fas say loxo ne sama yoon nekku ci ndax mbugalum suñ borom kat ak dumay suñ borom bu dee ñëw du ci xool kii ci la bokk ak ku ci ndax ñi mën a wax dañoo war a wax ñi war a jëf dañoo war a jëf alxuraan lii koo jóg sobees kese ñu jël alxuraan wan ko gannaaw lem ko teg fa la tënkootuñ ci waxi suñ borom déglootuñ waxi suñ borom dégg nga yëmatuñ ci ñu jël nag alxuraan jooju di ko fowe def ko ci sobe ngir caaxaani àddina képp boo xam si ndaje mañ cay dajee maanaam dara duñ ko fa def lu dul faat fa waxti julli góor ak jigéen dajee fa mooy yàlla gane a fa takkaanaay sa ñu jël alxuraan joojee nag de di ko sol ci ay yére ci sobe te loolu mi wax naan laa yu maçon ilal mu taharun kon Sénégal nañ xam ne luñ gisagul dafa agseegul yu mel nii nag ñuy toog di seetaan musiba yi wàcc ci réew mi ci wàllu bekkoor wàllu xiif wàllu wéradi dee gu gaaw te bette lii dong moo koy indi ndax alxuraan yi suñ borom ji kat jàng ko jëfee tax yàlla wàcce ko waaye wàccewu ko fi ngir ñu di ko caaxaane wala ñu di ko wuteeb xaalis wala ñu di ci tappale wala ñu di ko wan gannaaw suñu ko noppee jàng rek mooy tukkatal àddina ci nit ki na ko nit ñi bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye xam ne lii moom jaaduwul te sëñ Tuubaa day waxoon na lu leer nañ nee na fii ma toog day ba Saalum mbooloo gis naa mbooloo mu fi jóg ne dañuy wuti lu baax waaye duñ ko am ndax lu bon daa taxaw fee ne duma ànd ak lu baax lu baax taxaw fee ne du ma ànd ak euh, lu bon te léegi yow mi nga xam ne yaa jëm ci lu baax nag bëgg bë bë ànd ak ñaar ñooñu ñëpp nee na nag loolu mooy tax dara du sotti koo xam ne si boo demee ca màggal ga yaa ca man boo demee ca jàkka ja yaa yaa fay jiitu waaye boo demee ca baal ba yaa fay jiitu. yaa ca man dem ca làmb ja man ca dem ci caaxaat ya man ca dem ca waxu nen man ca dem ci njaaloo gi man ci dem ca war ga man ca dem ci jëw gi man ca dem ca fen ja man ca ah, yaakaar naa ne yàlla nee na bu ëllëgee du ma xool sa lu baax la nga doon def de ci gannaarug naat googu rek lañ lay àtte de innal munaafiqiina fi darakal asfal mina naat te sëñ Tuubaa loolu moo ko waxoon sëñ Tuubaa moo waxoon ne lii ngeen gis ci man ba tax ngeen ñëw te woowuma ci kenn dana am lu ma leen dénk képp koo dem nag gisatoo ko ci man bu la neexee mën ngaa dellu fa nga jóge woon waaye bala ngeen dellu xaaral nag ma am lu ma leen yabee ngeen door a dem mooy keroog bi mu taxul yoonu murit daa di wax na nag ñett ñi ñoo am piccum toor toor ak piccum ndobin ak piccum naat nee na allasina amanu wa amilu salihat nee na ña saxoo di def loolu ñooñu ñooy piccum toor toor ñooñu dañuy weex tal tal tal tal na suñ borom nee na ñu dee rek a tee ma tàbbaleen àjjana muy piccum tóor-tóor moom àll si na amanu wa amilu saalihat mooy ñi sax ci lu baax di ko def te teggiwuñ seen tànk waaye nee na ñi sax ci lu bon te teggiwuñ ci seen tànk suñ boroom nee na faatu rek atee ma dugal leen sawara mooy ñi weddi yàlla weddi yonent bi sax ci lu bon te duñ ci jóg mukk ñooñu ñooy piccum ndóbin bi nee na kooku yi ñuy wax gannaarug nat nag nga xam ne day yor ñaari couleur couleur bu weex ak couleur bu ñuul. nga xam ne naat googu day dem màkk naat googu day joxe addiya naat googu day fasub sëy naat googu day day sarxe naat googu day dimbali nit ci alalam waaye noo nii muy defee loolu lu baaxet nee na na lay defee contraire ba naat googu day dem ci soxna si jàmbur naat googu day fowee alxuraan naat googu day naan sàngara naat googu day fen naat googu day jëw naat googu day rambaaje naat googu day tas ab diggante waaye nee na innal munaafiqiina fi darakal asfali mun a nar ganaari naat yi nag moo bari lool ci Sénégal ak ganaari ndobin ganaari tortoor moom lu néew a néew a ci am loolu nag kon nañ xam ne deltu deltu gannaaw lislaam la ci ñun kon Sénégal bu ñuy wax quatre-vingt-quinze pour cent di musulman nañ jàpp ne ay tur la te tur yi sax tubaab yi ñëw na sappil na ko nga xam ne turu jullit wala turu sa turu sahaaba bu mën wala turu yónent bi dañ koy yàq léegi tuddee ko seen tur lool nag tubaab bi lu ko def mooy ni mu këfe sunum xel ba dugal ñu ci kéefar mooy dafa fexe nag ba tayel la ñu ci jàng tayel la ñu ci liggéey ba pare nag ñu bëgg a tedd moo tax nag mu dikk imposé ñu ne leen léegi li ñu bëgg nun tubaab yi li nu baaxle li ngeen baaxle yéen di ko tuddee te te seeni saxaaba def ko seeni yónent dee leen jël tur yooyu tuddee na ko noonu nun nag leen bon la ñu jël ko xëpp leen ko yéen jullit yi ngeen di ko tuddante ci seen biir loola ni ma koy tekkee mooy récupéré nañ tur yi turu jigéen gu góor yépp yàq nañ ko léegi awa awa awa ñu ne ewa waaw tur yu baree bari ñu yàq ko bu Bubakar ñu ne Bush dégg nga yàq ko kon tur yi dem na léegi nag mu def jikko yi fi mu toll nii la ma waxoon démb moom laay wax fi mu ne képp ku ci jóg dem di lijjant ji dara ci biir réew mi bu la wóoree na yaa ngi jóg di ko lijjanti ci bala ngaa dem da nga wut intermédiaire damaa bëgg a dem bureau sàngam koo fa xam ndax xam nga ne yéeg baag wàcc ba neexle ba ak tappala yaag war ya loola doo ko mën a dékku te day génnee ci sa temps day dem léeg-léeg nga dégg ko ne ah foofa de mën nga faa dem ndax ka fa nekk dub jullit kooku ab chrétien la su ko defee nga ne ah chrétien yi de amuñu caaxaan ñoom kon ana caaxaan yi kan ñoo ko yor léegi ñun jullit yi ñun ñoo jël caaxaan yi féetewoo ko léegi jël li nga xam ne moom la lislaam sant ci jullit yi ñu jël ko tudde ko tudde ko ñi nga xamante ne si ñoom ñoom ñooy musrikuun yi kon benn gi noonu léegi gis nga ne fi mu toll nii maanaam njaaloo gis nga ni mu te bu njëkk yi lislaam dafa wax ne ne ku ko def nañ ko dóor bu jaree rey reyu géttan ñu rey ko léegi dañ koy def di ko tiitaroo di ko puukaree di wane ne man maa tooñ doomi diw moo xam ko góor ki la moo xam ko jigéen ki loola buñ ca àggee tey ana musiba woowu tey tey fan lañ fan lañ koy mën a waxe ji ci àddina tey ji gis nga ko tey boo ñàkkee ay caaxaan ba ñépp xam ne ñàkk ngay caaxaan au lieu que ñu ne kii di jikkoy lislaam la yor wala ñu tuddi la kenn ci saxaaba yi ku mel ne Omar ibn al-Khattab wala saxaaba yi waaye dañ naan diw dey ab almaa la kon nee nañ léegi almaa yi nga xam ne ñoom duñ ay jullit ñoom ñoo ñàkk caaxaan kon caaxaan yeeg tappale yi kon jullit yi ñoo ko yor waaye bu fekkee ku nangoo liggéey nga nga xam ne da ngay dundee sa ngoro te doo tooñ kenn ñu ne la diw ab américain la kon jàpp nañ ne kon ñàkk nangoo liggéey ak sàcc ak wurut léegi jullit yi ñoo koy def te loolu sax wane nañ ko ndax tey ji boo yoroon say dàll dugg ak moom ci jumaa ji ak jumaa ju mën a doon boo ko fa sumee ci bitt boo dikkee doo ko fa fekk te ñuy julli si doo nga koy sàcc kon sàcc geeg wuruj geeg njaaloo geeg tappale yeeg fen yeeg jëw jeeg rambaajeeg kon ñun jullit yi ñun ñoo ko féetewoo yëmatuñ ci nag ñu jël alxuraan nag maanaam di ko xeex xeex alxuraan mooy jëngatuñ ko dañuy néewal doole ñi ko jàng di leen toroxal duñ leen jox dara booleeg di leen sikkal di leen sabote ba pare nag jël alxuraan jooju def ko ay yére di ko sol kon daal loolu mooy li nga xam ne moo waral photo bii ma publier ko jërë ngeen jëf.